maa ngi ziar man Cheikh Gueye tabaarkalla man kat ndox mi daa xawa a kii sama kër gi moo tax mujj maa ñëw ah jaaxle ak boobu ubbu la ñu mën a jàngatee ci kanamu jëmm jii mu mel ni mbënn mi daa jaar ci këram ndox mi bàyyiwul fenn moom day këram mi ngi nekkee ci digg Daaru Xudóos ci dëkk bii di Touba. fii Daaru Xudóos la kër sëñ Sidi Abdou ci bassin sëñ Mourtala ak digganteem ak sëñ Bass Abdou Khadir boo ñëwee ba ci tali beleel bi diggante ñaari tali foofu mooy mooy mooy zone bi nga xam ne fi la fi la yëf yi nekk daal bassin sëñ Mourtala exact boo ñëwee ba ca bassin bi rek tali bi jëm kër sëñ Bass Abdou Khadir ci ginnaaw kër sëñ Sidi Abdou Lahat foofu la yëf nekk boo jógee Daaru Xudóos ci marché bi boo ñëwee bala ngay egg si Tokor Sëñ Cheikh Gaynde ma ci ma pharmacie Massalikul Jinaan bi boo jàddee à gauche foofu tamit fi la fi la ndox mi nekk sëñ Bass Abdou Khadir toujours fii lay jaar sëñ Sidi Abdoulaat fajar gi fi toujours lay jaar doxantu mais ndox mi da leen di baare ba daanaka dootuñ ko mën daal. taw bi mu taw ci fajaruk alxamis ji dëppook ñaari fan ci tam tamxarit atu 1445 ginnaaw gàddaay gi. yemook jeudi 20 juillet 2023 moo dugg ci biir kër gi bàyyiwul fenn ba ci kaw lal yi fépp tooy Serigne Cheikh Gueye mi nga xam ni moo dund lu métti lii di dellusiwaat ci mbir mi naka la demee. ay boori 5 heures de matin laa taw bi après ñu tëddaat yàlla dogal ñu dem ba ci kanam ci lañ ma fëgg sax ne ma ndox maa ngi dugg ci biir kër gi euh, xëy na mbedd mi comme par exemple bu feesee nii surtout euh, ñaari loolu mooy waral day def effet. parce que comme lu mel ne place bi ak canal yi nii surtout sax ñooy gën a indi problème bi ñoom bu feesee ñaare rek ndox mi ñi si mbedd mi day ñëw ba mu ëpp léegi si ñëwee ba mu ëpp nag loolu day day day dugg ci day mel na day day day ronu day ronu bâtiment bi ci suuf lay jaar après mu dugg si biir kër gi bu kër gi feesee nag lay dugg si biir néegi c'est que nag tabaxoon nañ ci ay briques mais briques yooyu tam aussi biñ koy tabax xam naa dañ koo gësul pour profondeur bi mais yàlla dafa dogal dafi dafa gasaat roon brique bi mën a dugg si biir. muy danger lool sax muy lu danger danger sax. parce que man bi ma yëgee ndox mi nag xale yi laa njëkk a xalaat ma njëkk laaj an xale yi ñu ne woon ñu ngi ci kaw lal yi na leen na leen génne kon yóbbu leen ci kër gi ñu dendal ko defee foofu moom comme yàlla dogal mu amuñu ndox te buñ leen fi fekkee ndox mi bu leen fekkee mën leen di jafe-jafe te bâtiment yi tamit dafa yàgg-yàgg goo xam ne xëy na euh, bu ko ndox mi jàppee mën na koo daaneel te bu waaw waxuma la xale yi sax mais mag ñi mën na leen indil ay jafe-jafe. situation moom situation bu bu xaw a metti la fi mu nekk ndax euh, néeg yi amul fu des fépp am ndox euh, egsi ci kaw lal ci moment boo xamante ne euh, xaw na doy waar metti na trop tamit. mais am nañ benn machine pompe sax bu ñu fi indi woon pour jéem a évacuer ndox mi yóbbu ko ci canal yi mais xëy na pompe bi moom it yàlla dafa dogal dafa newoon ci biir ndox mi moo tax xam naa dafa noyé ñu ngi koy jéem a taal di ko jéem a taal nii sax mais takkul ba léegi ñu ngi xaar technicien dañ koy mujj jéem a yóbbu xool ba xam lan mooy problème bi bu saafara woo rek xëy na peut-être ndox mi mën na wàññeeku bu baax a baax. mu mel ni gox bi dafa bokk ci fi waa ONAS defoon seen canal yi. waaye bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom day mel ni canal yi saafara la bu jur jàngoro. canal yi ONAS yi moom man problème bi ba léegi sax xaw ma ndax jooytu nañ ko fi daaw. Euh, gisaguñ saafara ba léegi dañoo duggoon ci kër këroo kër porte à porte lañ defoon léegi ñu laajoon ay 37000 kër gu nekk euh, bañ ko joxee ba tey nag euh, xamaguñ ndax canal boo xoolee sax li indi problème inondation bi moom moo ko def ñi daawut inondé ñëpp fi mu nekk nii canal yi ñoo tax ñuy inondé mais boo ubbee canal gi sax du jël lu mat daanaka paanu ndox day fees daal di arrêté mais xamuñu problème bi lool sax ñu ngi ci profité di wax waa ONAS ñu wax ñu lan mooy solution wala fan lañ toll ci travaux yi nga xam ne mooy travaux kanaal yi nga xam ne moom lañ def ci biir Touba indi gàllankoor ci inondation bu bari bi lépp lépp mën naa ne ci ñoom la bawoo parce que Touba ci kanam def na ay effort ba tàyyi fu ne def na fa effort mais canal yi ñoo posé problème problème bi yëpp yëpp yëpp canal yi onage yi la nawetub daaw lu mel nii amoon na ci gox bi askan wi fi dëkkee woote nañu wàllu waaye day mel ni seen woote boobu daataa bi ci nopp ku gisuñu taxawaayu benn autorité. fii moom Daaru Xudoos moom naa la xamal benn affaire maanaam du benn autorité euh, administration bu xam ne mës na fi taxaw depuis 2012 bi ñuy inondé ci Daaru Xudoos ba fii may wax ak du daaw du daaw jéeg du ko weesu du du du du sous préfet du du maire du kilifa yi sax wax ba ca kilifa diine yi sax doo ci gis kenn kilifa aada yi ñëpp man xaw ma lan mooy problème mais feneen daal di nga leen fa dégg te fii nag pour ni feneen di amee problème noonu la ko fii di ame kon ba léegi ñu ngi leen di tàllal ak di leen xaar pour ñoom itam ñu ñëw mën jàpp ci kii barki démb rek maa ngi woo waa Sénélec parce que fii boobu ay kii yu fi daanu woon ay ay poto ñu leen di woowoo mun leen jot parce que boobu lii léegi dañ doon bañ parce que bu fekkoon yàlla dogal ne defaruñ ko bu yàlla si tawee bu ndox mi ñëwee mën na indi ay jëye yoo xam ne doo xam kon donc kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi te nekkal fi président nekkal fi keneen war a taxawu askan wi ñoo ngi leen di tàllal loxo ñoom ñëpp ñoo ngi leen di woo itam te xamal ne leen Daaru Xudóos ci ci Touba la bokk ci Sénégal la bokk ni ñuy taxawoo feneen dañ koy taxawoo Daaru Xudóos Daaru Xudóos dañ koo ginnaawal de trop de trop de trop ñoom leen a dëkk bi dañoo war a di observer maanaam dañoo wër di wër di xool fépp ba pare waaye ñoo toog rek ne Daaru ci biir dëkk bi la nekk ba tax na warut indoon ne warut am ay problème Daaru Xudóos ay kii la rek ay xur la woon ay nangam ay néew gu doole dañ fiy dëkk kon war nañoo def ay recherche ci yeneen ni comme ni ñu ko defee ci yeneen quartier su ñëwee xool xam ne fii amul problème fee ko ëpp problème ñu defar foofa su ñëwee ci Daaru Xudoos xam ne milieu bi am na problème ñu lijjanti milieu boobu mu jeex loolu fii moom yomb naa yomb naa lijjanti parce que fii bu ñu fi defoon benn benn canal benn tiwo bu ñu ko fi gasoon 130 mètres la boo fi gasee benn tuyau yóbbu ko ci tuyau kanaal eh, Touba ci kanam yi boobaa fii dootu am inondation ndox dootu fi taxaw parce que toujours bu taawee ñun ñoo koy manque di ko yóbbu ci canal Touba ci kanam boobu. li wolof naan yàlla moo ay ci pootum buur ndax ndox mi mu wàccee ci dëkk bu sell bi di Touba mi ngi am lu yées 24 heures ginnaaw bi fi jëwriñ ji ñu dénk wàllum ONAS ñëwee doon amal tukkib nemmeeku ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu fi amal. te ci ay kàddoom dafa dalaloon xelu askan wi waaye fi mu toll nii askan wi. jaaxle nañu lool